asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu bokk jëli ji tedd yi bokki taalibe yi ci ndigalul Cheikh Mouhamadou Mountakha mi nga xam ne moo fi Serigne Touba ci kaw suuf ñuy ñaan mu yàgg fi lool te ànd ak wér ci kilifteefu rakkam di jëwriñam Serigne Sidi Mbackeem Cheikh Abdoul Ahad mi nga xam ne moom la fi yabal mu teewal ko ci jataay bi jox ko kàddu gi mu wax ne nañ wax ci turam. jotle kàddu yi sëriñ bi ak i cantam kon ci turu sëriñ bi président de la république Macky Sall sëriñ bi nee na mi ngi lay nuyu ak mboolem délégation bu mag bi nga àndal bépp di la dalal jàmm ci liggéey bu rëy bu am solo bii nuy daloo tey muy Ila Touba di autoroute bi lëkkale Touba ak Ndakaaru te sunu kilifa gu baax ga Cheikh Sidi Mokhtar tegoon xeer bi ba tey jii ci dogalu suñu borom Cheikh Mouhamadou Mountakha ñëw ubbi ko ànd ak mboolem njabootu Serigne Touba di jéego bu am solo ci doxuk réew mi waaye mu bokk ci li yombal sunu mission nun doomu adama ci kaw suuf mooy dundal ko waaye itam di dimbale di dimbale ngir nu mën taxaw ci ndigalu sunu borom li mu wax ne fantashiro fil ardi wabtaxu min fadlillah ak li mu wax ne famshu fi manakibiha wa kulu min rizqihi te mooy nu génn dox ci suuf si wër xéewali gëstu njariñ yi ngir jariñu ci ak jariñu ci muy loo xam ne ci jamonoy màggal dana wàññi bu baax coonoy nit ñi sëriñ bi nag kon mi ngi lay sant bu baax di la gërëm mi nga sant bu baax itam mboolem njabootu sëriñ Tuubaa ci wuy si bi ñu ko wuy si di itam mboolem ñi nga xam ne seen maam ya Serigne Touba lañu àndaloon Serigne Touba tofal leen mbooloo Serigne bi nan mi ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di gërëm mboolem mbokk yi waaye di gërëm mboolem taalibe Serigne Touba ci seen teewaay bu rafet di la sant bu baax nag di sant bu baax itam mboolem ñu doon liggéey ak di ci yëngatu ba liggéey bi mën a sotti ni mu sottee ci dëkk bu tedd bi nga xam ne Serigne Touba da koo sos ala ususin min na taqwa min allahi wa ridwani muy gëm yàlla ak yaakaar ko ak xeeñtu ngërëmam ba yàlla may ko fi mboolem li mu fi bëggoon lépp Sëriñ Tuubaa bi mu sanc dëkk bi ay rab la fi fekkoon ak gott bu lëndëm këriis bi mu fiy dikk wut fi fu mu baye wóorut suuf maam waaye dara toxu foo ni ñëw lu dul dundal diine ak jaamu yàlla bañ koo booleeg dara Sëriñ Tuubaa daana wax ne li tax ma sanc dëkk bi mooy daw nit ñi ak daw li nekk ci loxo nit ñi daana wax ne li li tax ma fonk Touba ak Daaru Salaam te du ma leen yamale ak feneen mooy sama yéene ju sell ji ma am bi ma leen di sance ñoo fi andi ngir dëbuwuma fi suuf maam am yàlla te def ko ci ndigalu yàlla aku tànnam sëriñ bi nag bi mu sancee dëkk bi dafa ñaan suñu boromam ne ko nanga ma may Touba mu mekk mu mel ne aljana wa chaal ilahi maskani Touba abad mithlasmi haabijaahi xayri man habat moo tax lépp lu nit di soxla ba dundam mën a jag mel na àjjana ci kaw suuf Sëriñ Tuubaa ñaanoon na fi moo xam ci saahir la wala baatin wa daara ixlaasin wa sidqin wa wara wa daara sunnatin wa man jan min bidaa ñaanoon na it mu doon barabu xam-xam ak leer ak gindiku wa jaal binaiya binaa ilmi wa amalin bi sunnatin wa xilmi wa jaalhu da'ban maskana taallumi wa mawdia alfikrati wa tafahumi ñaanoon na it yàlla def ko barabu xéwal ak wërsëgu lew te dagan warisqa hajhal atibal xalaali fi l usri wal yusri ala tawali lu àdduna tartar ak lu mu jafe-jafe yàlla di leen defal wërsëgu yaatu telew bu faw ndax Sëriñ Tuubaa nee na yàlla defal na ko du yëg mukk naqari jamono du yëg xat xat xati jamono wali siwaaya yantahi dayqu samaan waaye nag lu mu gàtt-gàtt nu fàttali ko tuuti ci waxi Serigne daa waxoon ne dinaa leen ji danaa leen jàngal juróom benn mbir yee leen ci ñeenti tomb jàngale mu njëkk mi danaa xamal boroom xam-xam bi ak woroom xel yi loo xam ne ca dalil ak burhaan yu leer lay tegu loola mooy nit mënta génn ñett ñi njàccaar silmaxa ak ku gëlëm mu ne njàccaar daa war jiitu di jiite tey wommate jëm ci yow njaacaar nag mooy ku mën a ràññee lu baax ak lu bon kooku nag moo mën a jariñu tey jariñe silmaxa daa war di topp ci ginnaaw njaacaar fu mu ko jëmee mu aw fa silmaxa nag mooy képp ku mënta ràññeel boppam li baax ak li bon waaye saa su nangoo wommatu ci ginnaaw njaacaar ci la tànni li baax bàyyi fi li bon kooku it kenn mënu koo tey jariñoo ki gëlëm nag daa war a laaj ñaxam ñu wan ko yoonu bu ko nangoo nopp lu jariñu nit nag na muy def ba jot ca la muy wut génn juróom ñi ki jug jëm ca la muy wut jaar ko ca yoon wa koy maye mel na kay dem ca jaba ngir yitte te yoru njëg ak ki jug jëm ca jabar ngir njëg ak ki jum ki jug jëm ca jaba ngir yitte ngir yitteem te yóbbaalewul njëg te fas saa jot jaara ko ci randal ak ki jug jëm ca jaba te yóbbaalewul njëg naam waaye fas na faa daan dooleem ba jot ca la muy wut ak ki jug jëm ca jaba ngir defa fa dagaan dong ak sàkku ndimbal ku jëkk ki ak ku ñeenteel kenn mënu leen a tee jot seeni aajo ku ñaareel ki ak ku ñetteel ki kenn mën leen tax a àntu ci seeni ajo ku juróomeel ki nag bu dajeek ab tab aajo mën naa faju ba dajewul ak moom daal di sooy ñaareelu njàngale bi ma ci xamal ñi am kilifa ne kilifa ku ko am dangaa war a def lim lay digal tey moytu lim lay tere loolu mooy warteefu njaboot ci kilifaam lay warteefu kilifa mooy di digle ak di tere bu ñu defee ñoom ñëpp ñu ànd jariñu bu ñu deful jaanam wàcc mu jariñu lay lore dal ci seen kaw ñetteelu njàngale bi ma ci xamal ñëpp ne ci digle lu baax ak tere lu bon ci la lépp yiw di juddoo àdduna ak àllaaxira ci safaan bi ci la jëpp lor di juddoo ci àdduna alaaxira ñeenteelu njàngale mi ma ci xamal kilifa yi ne am yërmaande ci njaboot gi moo gën ci ñoom di doxee safaan bi di xamal njaboot gi it ne topp seeni kilifa moo gën ci ñoom di doxe safaan bi juróomi juróomeelu njàngale mi ma ci xamal ñëpp ne ki sañ a digle ak a tere mooy ki xàmmee liy jariñe ak li baax di ko digle ràññee lu bon ak liy lor di ko tere waaye ku mënta ràññee lu baax ak lu bon luy jariñ ak luy lor rek kooku ndigalam ak i teram lu ne mën na ca juddoo juróom benn lu njàngale mi ma ci xamal ñëpp ne ki xam lii jariñe di ko digle xam lii loolee di ko tere balaa am kilif nongulee li mu leen di labiré la cay juddoo mooy yiw ak jàmm ak noflaay ñëpp tey ji ak ëllëg ñeenteel bi mooy ku jug ngir labiré ñi mu yilif war na ñoo rafet njort ci moom ndax ku yéene nit ñi aw yiw di leen ci labiré wóoru ca jëru ca kooku lu mu lay digal jàmm rek la lay jëme kon topp ndigalam moo lay jural mucc ak jàmm ak afiya ñeenteel bi mooy nit ki lu baax la war di sàkko te sax ci jëm ca te di ci jëmale ñeneen ndax jëmee aw yu ci ci ñeneen lu baax doo nga ci juddoo kon maa ngi leen di dénk maa ngi leen di dénk ngeen sax ci yiw te di ko defal ñiiw ak ñu dul ñoom bu leen ko defee am aw yiw mucc ci safaan bi rikk nag bu leen dee xëccoog ñi yor mbir yi kon ngeen am jàmm ak mucc ak noflaay te te ngeen moytoo def luy waral rëccu ak jooy ndax boroomam xel day téye boppam ba du dugg ci liy waral gàkk-gàkk ak i ndax ndax di dij boppam ci njariñ yu koy jëral mbétte mu sax bu faw moo tax waxi sëriñ tuubaa ji ñëpp ci war a bàyyi xel ndax ku ci tënku doo réer mukk te doo sànk mukk Serigne Touba nag suñ borom da ko may mu tabax aw xeetu nit ni suñ borom bëgg ak jullit mel ni mu indi ñu projet mach tudde ko mashru al fawsayni mu indi àdduna ak alaaxira moo tax Serigne Touba dafa dajeek contexte boo xam ne benn nitu yàlla dajewul ak moom ndax sunu borom dafa rocc ci loxo julli yi doole yi àdduna ak mbootam teg ko ci loxo yéefar yi ngir xool la ñuy def ndax dañuy rafetal te delluwaat ci seen borom ak fi mu leen dëddal ñu war caa jaar wala dañuy jaar fa yéefar yi ànd ak ñoom ba far sànku adduna ak alaaxira moo tax Sëriñ Tuubaa bi mu ñëwee li mu def mooy woon nit ñi ci al iraadatu wal himma te mooy fexe ba yàlla gën a leen lépp ne ko alxuraan waxe qul in kaana aabaa'ukum wa abnaa'ukum wa ixwaanukum wa azwaajukum wa asiiratukum wa amwaalun iqtaraftumuuhaa wa tijaaratun taxsawna kasaadahaa wa masaakinu tardawnahaa ahabba ilaykum min allaahi wa rasuulihi wa jihaadin fii sabiilihi wa jihaadin fii sabiilihi fa tarabbasuu hattaa yaatiya allaahu bi amrihi ci noonu la Sëriñ Tuubaa yara ay taalibeem wax leen ne saxaaba yi ñooy seen bàyyi diine ci diine ji ci la defare wenn xeetu nit wu bees woo xam ne kenn mësula la gis ñu mel ne ñoom ci bëgg yàlla ak pëstéef ak jikko ju rafet ak yar ak teggin ba mel ne saxaaba yi ñoo wàccaat ci pëstéef ak yitte ju kawe Sëriñ Tuubaa nag li tax mu am ndam ci liggéey bu rëy boobu mooy yetti mbir yi bu jëkki mooy ar ruuxaaniya ndax dafa fekke adduna jëm jug ci almadda te mooy gëm matériel ba fàtte yàlla mu jëlaat xolli yi nàmmaat leen jëme leen ci yàlla ilallaahi bil quraani wa sunnati allati hadatni saraftul kulla wal qalbu xaashi'un alwaaqi'iyatu te mooy wàcc ba tolloog nit ñi woo leen ci la dëppoog liy dund li ñu dund jeg leen leen baax ak diine ba ñu mën koo dund te leen soral xaatibu naasa ala qadri uqulihim walan yashhada diina ahadun illa xalaba lan yusaada diina ahadun illaa xalaba moo tax moo daa woon nit ñi ci yërmaade yàlla ji leen xoole bëtu mbëggeel wa rahmati wasi'at kulla shay'in yaa maalikal mulki yaa man jalla an xawadin irham jamii al wara yaa haadiyan li radaa fexe ba musal leen ci doctrine alxadaasatu te mooy modernité fexe ba ñu mucc ci at tahrib te mooy occidentalisation du ñu am complexe ci seen gëm-gëm ak seenu col ak seenu doxin dañu nuur li ñu doon te sëriñ bi wax na ne law tanasartu la daxatu naara wal iyaasu billahi taala looloo war a ñëpp maase dëgmal sëriñ Tuubaa xam ne mooy seen njëriñu àdduna alaaxira allahu yansuru nii wal xalqu tatbaau nii fil barri wal bahri zanefin bi ba ca topp mooy albasata albasatatu te mooy ñëpp koy mën a dund te du la sonal ñëpp ci mar a amul kenn ku génn wa yastawi mubtadiun wa muntahi fii naf yi wa xayruhu la yenti teg leen ci ashratul mustaqim ba képp ku bëgg ku ko bëgg aju ci moom mu garanté la àjjana àdduna ak laaxira te wax na ne lépp lu ma bind ni ma ko waxee ni la ko suñ borom dogale wa huwa lisi jaala ma katabtu kama katabtuhu wa ma kasabtu wax na ne sama lépp ak jaamu yàlla la wax na ni itam képp koo xam ne euh, juróo ngaa man suñ borom dana dana la alak li man lahu kulliyati ibada hamdi wa man xaalafani abada nee na itam képp koo xam ne yaakaar na ma suñu borom teyal na sa bakkan ci àdduna ak alaaxira taabat nufuusu man taallaqu biha dunya wa uxra zaaka fadlu rabbiha nee na suñu borom jéggal na képp ko aju ci man yaakaar ma wax fir li walidayya wax fir li jamia man bii taallaqoo bi fadlin yaa samia nee na képp ko aju ci man ku ne yàlla suñu borom musal na li ci seytaane moo tax lépp lu fi yàqu rek yàqu bakkan la waaye yàqu seytaane suñ tubaa génn na ju najjaytaman bi taallaqu maa mina shayaatiini fa sukkur yasmaa nee na itam képp ku ko yaakaar dana tabbi àjjana kullu muridin bi yaluusu yasaadu wa innahu min al aza mubaadu moo tax ca gànnaa dafa xëy bis wax sëriñ Aliou Sey ne ko Aliou wool fere yi ñu daje ba ñëpp daje mu ne li ma leen di doy de mooy suñu borom damaa xamal ne dana ko Aliou limal ma ci yéen yam Sénégal gumlim rek sëriñ bi na ko du googu yàgg sëriñ bi na ko li ma ci jublu mooy suñu borom damaa xamal ne balaa nëgëni si déwén danañu fekk ñu delluwaat Sénégal ci ak ci yéen loolu nag li ma jublu ci wax leen ko mooy damaa bëgg ngeen xam ne lépp lu ma leen dikk ni ngeen di gise lii ni ngeen di gise loolu daane fii moo ko waxee ba booba nag ci kàttanu yàlla kenn du faatu boobu fekk na nag am na kenn ci taalibe yi koo xam ne dafa wér di ba ñëpp di ko xaaroo yaakaar dee faatu waaye suñu borom dafa def mu wér ba Serigne Touba dellusiwaat Sénégal ba ñëw ci yéen jëlaf mu door a kon nag sëriñ Abdoul Ahad waxoon na ne sëriñ Touba ñeenti mbir la ñu gisoon mu itteel ko benn bi mooy diggam ak yàlla diggam ak alxuraan diggam ak rasulullaay ba ca res mooy dëkkam bii di Touba ñaanoon na suñu borom saxal fi kaaraange musal ko ci lépp luy musiba te lépp lu mu fi ñaan yàlla suñu defal na ko ndax moo wax ne la hoowa habta maakafal xutuba fa fa suqlahu fawqa rija fii Touba kon tey bu nu dajee fii di ubbi yoon wii di Ila Touba te président makki sal amal ko kon day dëggal ne la Serigne waxoon ne rabbi stajib waltu kamin maana waytu la daa Touba lati bikkatum naa fii ko bu naa suñ borom dëggal na ko kon Serigne Touba nee na kon Serigne sëriñ bi nee na président mi ngi lay sant bu baax ci si ci sa yéene jure ji ci dëkkam bi def nga ci li nga man ak li nga mënul ba yàlla sottal ko tey ndax lii kat. keroog ba ñu dox xeer ñi ëpp ci nii yaakaaruñu woon ne mën naa sotti ci diiru juróom-ñaari kon nag bu ko suñ borom dogal ñi tey war ngaa sant yàlla bu baax kon nag la Sëriñ Tuubaa waxoon ne ku ma defal loo man ma defal loo mënut ku ma defal loo mënut ma defal loo jomb kon nag sëriñ bi nee na faaw mënuñu su ñàkk sant mënuñu su laa ñàkk gërëm kon nee na mi ngi sant bu baax ci turam ak ci tur mboolem jëbaru Sëriñ Tuubaa gi ak ci turu mboolem yoon murid mu ngi yeesala cantam gii nag ci liggéey bu rëy bii nga xam ne defal nga ko waa réew mépp nga ko defal waaye defaral nga ko Touba defaral ko waa Touba Touba nag bu ñu ko wax Serigne Touba moo tax kon euh, Serigne Touba kenn mësu koo liggéey di ko rëccu ndax moo wax ne képp ku ma liggéeyal binaa yashkuran wa azim qibali wa xidmatal ayaali turan aqbali kulli lasina ishtaxalo bi xidmati wa takfihim gadan eh, aza eh, ka sadmati waxoon na ne na ma defal képp ku ma liggéey suñ boon defal ko loo xam ne képp ku ma liggéeyal dana ko ci ñee bu faw kon waa du waa dëkk bi rek koy jariñoo waaye réew mépp la jariñ kon ubbi nga tey bunt bu rëy te gaaw ci suqali réew mi te Tuubaa gi mu jëm Sëriñ Saaliwu Mbàkke waxoon na ne yaakaaru ju tas nii nu yóolu ko Sëriñ Tuubaa Sëriñ Tuubaa nag dëkkam bi wàccuwaay bi mu am ci dénn ak démographie ak ci koom-koom ba tax ñu war fee def sànc yu toll nii li ci jëkk moo dina Touba dafa am wàccuwaay wu màgg ci Sénégal ak ci àdduna bi lu mat ay millions yu bari seen yaakaar nekk fi ndax seenu sëriñ moo fi dëkk add mu nekk ay millions di fa daje bàyyi ko fu ne ci àdduna si Touba nag nekk ci diggu Sénégal di xoolu Sénégal nekk motoru Sénégal kon ku fi indi yoon wi daanaka lëkkale nga Sénégal gépp muy penk bi ak sow bi ak gànnaar gi ak Saloum bokk na ci li yombal jokkoo gi ci réew yëpp muy dëkk boo xam ne dana indi lu bari ci koom-koomu réew mi ndax ay gor yu nangoo liggéey te ñu yor leen ci jàmm ak jom ak ñeme coono di demal seen bopp di dunde seenu ñaq nii leen ko Sëriñ Tuubaa diggale wa talabul xalaali fardun yentami li kulli muslimin bi xëy wax mi am na benn borom xam-xam bu mag bu ñu wax Hubayriyan wax na ne 1958 li nga xam ne moo ñor ci biir Sénégal ci réew mi ci wàlluk mbay 60 pour cent yi murid ñoo ko def nee na loolu nag day waral njàmbaar gi nga xam ne murid am nañ ko ba fii ne mooy njàmbaar gi nga xam ne am nañ ko ci ne bitim réew ak ñee seen ñee daan seen doole ci mboolem Sénégal bi lii lépp nag li ko ko mooy mooy nangu natt bu ko suñ borom dogaloon ci moom te nee woon yàlla suñ borom de ba ma koy liggéey liggéeyal jombaluma ko waaye ba mooy fay foo xaluma kon nag payoog yàlla amut fenn fu mu yem wala lu doomu aadama mën a xalaat ci xeram lu dul ne coobare suñu borom la kon bi Serigne Touba nekkee ci yéen Jolof ci loxoy tubaab yi commandant de cercle Goulouga dafa bind benn arrêté ci moom le 7 mars 1909 wax ne sëriñ bi mayatuñu la li la wër ci néeg dëkkuwaay bu mu weesu ñaar fukk nit ñi lay seetsi ci bis yi bu ñu weesu juróom fukk te dañu lay dañuy ñaan permi doon a ñëw bala ngaa wubbeeti benn daara ngir jàngale danga am autorisation bu jigee ci commanda bu Louga tey ci tey jii fii ci Touba lu ma ñaari million ñoo fi dëkk fii nu toll li fi nekk ci daara alxuraan mën na cent 1350 te bokkul ak école yi diine yi li fi nekk ci ay jumaa yu julli ay juma mën na téeméer ak ñaar ko li fi nekk ci jàkk ay téeméeri téeméer la mu jàngal nu wa man yatawakkal ala llaahi fa huwa xasbuhu moo tax ci njaarim bis commandant de cercle dafa ñëw wax sëriñ bi ne ko ñun de dañoo am tey dangaa def tooñ bu rëy rëy ndax mboolem lu ñu mas lu la mas a teg ci nattu ay njort la woon waaye tey dangaa def loo xam ne yoon da tere ndax mooy ñii nga jële ay jaam murtani jënd leen indi leen senegal sëriñ bi ne leen fa ma leen jënd de seenu tere indi euh, àggagu fa bi ma leen indee fii itam goreel leen a tax tubaab bi ne tekk ba ci àgg mu ne ko yow de nii nga def bu ko ñëpp defoon ak njaam jeex ci àdduna mun ne ko man lu may doy ay jaam ndax ko gor yi nangoo doon sa jaam looy doy jaam mu ne ko ñun de dañoo amul jaaxle ndax juróomi dërëm yi ñuy laaj ci impôt di ci sonal nit ñi leen ci teg ay daan yooyu nanguñ koo jox yow nga laaj la ñaar fukki dërëm ak juróom-ñett ñu lay jëli ak di la wër te mënuñ làgg si la ko jox Serigne Touba ne leen li ko wóotale de mooy yéen li ngeen di laaj li ngeen leen di laaj laaju leen leen ko ngir yàlla joxu leen joxuñ leen ko ngir yàlla yéen deful leen ko ci yàlla man nag li ma leen di laaj laajuwa leen ko dama leen ko laaj ngir yàlla eh, di leen ko defal ci yàlla looloo ko wóotale kon nag Serigne Eh, noonu mu noonu ko suñ borom defaloon dogale kon nag sëriñ bi nee na mi ngi ñaan ci barkeb sëriñ Touba lii mu doon buntu xéewal bu dul tëjooti ba faw ci yow président yow mi nga xam ne yaa ko indi fii ci dëkk bi di la xamal ni itam sag cant ci moom nee na am na tàmbali waaye amul fu mu yem ndax nee na yàlla suñ borom dalaa boole moom jëmb jëkk muy toog ci jaatu jitaayu sëriñ Touba yi na nga def ko kilifa def ko sëriñ def ko waajur jox ko ab cër boo xam ne dara mënu ca dolli ko bi yàlla doogalee itam mu nekk fi sëriñ Tuubaa nee na nga yeesal loola feddli ko jàppaat ko yeesal sa taali bi ci moom lépp loo xam ne def digal na la ko itam amugu ci lenn loo xam ne defoo ko kon nag nee na sa digg moom cant gi am na fu mu tàmbalee waaye fu amu fu mu yom kon nag nee na mi ngi lay ñaanal ci barkeb sëriñ Tuubaa yàlla suñ moom jàppale la dimbale la ba mboolem somb yu rëy yi nga xam ne am nga ci réew yi yàlla kattan na la ba somb yooyu yëpp nga àggale ko ba tëj ci bëtam nee na moom ci boppam nag mi ngi lay sant ndax noonu la moo ko waxee ci làmmiñam ndax nee na ma li mu bëgg kat mooy ku ko ñaanam mu mottali ay yéenam kon nag faw ma ñaanal ko yàlla dimbale ko mottali ay yéenam nee na li mu koy jeexale rek moom amul loolu Serigne Touba rek la yaakaar moom la am mooy léppam. nee na jël na sa jëmm ji nag dénk ko Serigne Touba kon bàyyi na la ak Serigne Touba wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu.